yegg ca naññ ja mooy ne waa Benno Bokk Yaakaar yi fa jàq fi toll nii seen xel fa dalub ci seen mbër mi candidat Benno Bokk Yaakaar muy Amadou Ba fa ñoo jàpp na daal Amadou Ba fañ koy gañe maanaam fay ñàkk élection yi Dakar Presse yéen a kaay moo ñu ko xamal réew mi yéen a kaay dëggal ko na ko faa lay jox firndeli yaaw seetal Souleymane Jules Diop fa wax carrément ñëpp di dégg mun a neexut ba neexut waaye Amadou Ba mii dalul xel lii ma gis nii mooy ne fa nar a ñàkk yi a jël ndam li lii waaye man faa koy wax ca kaw magum waxoon naa ko nag moo gën magum xamoon naa ko Amadou Ba fa nar a ñàkk wote yi info yéen kaay dëggal ko ne Souleymane Jules Diop kay neexut ba neexut jàpp na ne Amadou Ba daal mënta gañ a wote yi 2024 bii ah ah benn bokk yaakaar fa nar a fori new laas yéen a kaay ne du Souleymane Jules Diop rek de Abdoulaye Bibi Baldé moom it wax na ko nee na suñu waxantee dëgg Amadou Ba mii dalul xel ña def li daal xel nag mooy opposition bi ku jégi fanweer ak juróom ci ay candidat yoo xam ne fa ñoo bëgg a laaj mi ñoom ñëpp fa ñoo ànd booloo benn di xàccandoo di dóorandoo tuddee seen bopp fit lépp ngir am ndam 2024 f waaye tamit wote yi jaar ci yoon Sud Quotidien moo ñu ko xamal Lamine Bara Gueye responsable APR la ci diwaanu Mbàkke mel ni ku leen yéen de loolu ngeen nekk noonu lu baax la ànd nekk benn waaye ñun APR rawatina suñ candidat bii di Amadou Ba problème bi mu njëkk a am mooy waa APR ci seen bopp fa bëri ay responsable yi ca nekk yokk na bëgguñ Amadou Ba d'accorduñ ak moom fañ koy xeex te fa ñoo noppi ndax ñoom fa mer ba futtu ñoom responsable bokk tuddee seen bopp fit fit woowu nag fa mel ni fa yóbbu fitu waa APR yi fi mu toll ne ak benn bokk yaakaar ndax waa fit yi fa ñoo bëgg wote yi ñëpp bokk ci rawatina Ousmane Sonko ba pare wote yi jaar yoon turbine yéen dëggal ko na fanweer ak juróomi candidat lañ fa ñoo ànd benn lépp ngir xeex démocratie Sénégal del siwaat fi ñàkkanteeg Macky ak ñum àndal source a yéen kaay mbootaayu candidat yooyu tuddee seen bopp fit Khalifa Sall mu toll nii bëri na ñoo ñoo xam ne fa ñoo bëgg ñu amal waxtaan dialogue ba pare randal élection yi watey ñu toxal ko point actu yéen kaay moo ñu ko xamal direct news ne man faa xamul lan la état bi di ragal ba tax fi nii am ñuy wax waxu toxal wote yi fa mel ne fa ñoo jekkagut wala boog seen mbër mi Amadou Ba fa ñoo ragal na fañ koy gañee ak lu ci mënti doon ay laaj la yu amagu tontu yor yor moom fa xëy ci ndaje mi amoon diggante njiitu jëw nii ne Amadou Ba bés bu nar a am solo la ci ki ñuy wax Ousmane Sonko yaaw seetal fukki fan ak juróom-ñaar ci weer wii ci la cour suprême di àtte ci mbiri Ousmane Sonko yi dugaatam ci fiche électorale beeg ñoom seen muy dogalu àttekat ba ñuy wax saabal si fay ak recours état bi ñu ne déetewaay ci même bés bi le 17 ci la ëtt àttekaay bu CEDEAO moom it di àtte coow li dox diggante Ousmane Sonko ak état bu Sénégal Dakar presse yéen a kaay ne ginnaaw Njaga Silla mi nga xam ne fa ngir fal ngir yu bees Sénat jàpp na décret ba jaarut yoon am na que ñoom it nee nañ décret njiit dogal ba jaarul yoon ñu neenal ko l'observateur moom fa ñoo xamal ne état bu Sénégal fi mu fa ñoo xam problème xaalis koppor waxandee mooy waaj a widd ba tax yéen bi fa wax ne fi mu ni nguur gi far force fra force doole mbaam fay wàññi dépense bi muy dundee ngir koppor mën a am ci seen kees yi ndax fi mu ni yëf yi fa garaaw de état bu Sénégal ngi ci rouge le quotidien yéen moom fa xëy àddu total ñaar téeméeru parcelle terrain suuf soo xam ne fañ koo jox ñu yëngatu ci wàllu tasum xibaar cité Mame Less moom lañ ko tudde wal fajri yéene kaay moom fa xëy àdduwaat ci njiitëram Macky Sall li ko Macron fal envoyé spécial 4P ca Paris Alioune ne voilà fi mu toll nii nag comme mi fal nañ ko loolu dana fexe ba suy bàyyi réew mi mu bàyyi ko ci anam gu rafet les sécu yéene kaay moom fa xamal musiba naaru bu naroon a xam a kaay na gars yi kay fa ñoo jàqoon waaye yàlla def na ñoom ñëpp mucc nañ libération na waaye am na geneen gaal goo xam ne barñi la déparé woon ba gàddaay xam na ñetti niw yoo xam ne gis nañ leen ginnaaw bu seen gaal ga suuxee fañ doon dem barça mujj dem barsàq tàggat yaram tafaatin fa nguufu ca kaw ëmm seen mujj ngolli ko daana ko bu leer nañ yaaw seetal tafaatin ëmm seen seen combat bi démb fa ñoo xeex-xeex bu métti ëmm seen fa dóor tafaatin ba kanam nga ñu yóbbu ko ca ardo mu ñëwaat xeex ba takarnaase kurpeñey naaw lool di ko dégg mujj gi ëmma seen juwaaloo ak tafaatin jàpp ca tànk ya tafaatin boof ca kawam ñu naan daanu naag daanu tafaatin jàpp ca ngemb ya rek ngolli ko ëmma seen na ngalañ léeg sa ko ñooñu ko xamal sunu làmb na ko faala ci yokkal ñetti minit ak 18 secondes moom la combat bi am xeex nañ tafaatin daane ëmma seen ñi daanu fi mu toll nii nag ci 1x bet moom la enquête yéen a kaay xëy di ñu xamal yaaw seetal xam nga bu njëkk ba jeunes yi rek ñoo doon jouer pari foot waaye a kaay bi ay kilifa ay mag ñu ngi ci affaire bi ndax seen téléphone lañ yor installé ci application bi 1xbet fa ngay suyee te kenn du la xamal dara soo gañee ak suñ la gañee yéen a li ñu seetlu daal mooy x bet bi bëri na ñoo xam ne fi mu toll ni ci sénégalais yi ci lañ nekk de lépp ngir bëgg a mos am dara waaye naar bi ñim gën a sonal mooy ñiy def ay tàllal ak match yu bëri fa nga yàqule waaye benn match wala ñaar code deux ku ci sax di ci teg xaalis bu bëri mën ngaa gañee waaye é léegi-léeg nga def code deux benn match teg ca xaalis bu bëri solo naar bi gañee fa ngay waye di ko defee xay xenu la abonné leen ci suñu chaîne youtube saa su ne ay xibaar yu wér te wóor